المصطفى بالصلاة بالسلام في آله والسلام هب لنبيك صلاة تستفى مع سلام دائم قد يستفى صل على الورى محمد مع سلام طيب يا سمدي لهبت بالصلاة بالتسليم في الآل والسهب ذوي العلوم له صلاة من خير في الآل والصحب وصف خدي اكتب صلاة بسلام للنبي في الآل والصحب وجد الطنوب ci bis bu mel nii di waxtu wi muy dugg ci waajtaayu fàttaliku gi nga xam ne des na ko fàttaliku Cheikh Chouaïbou Mbacké alayhi ridwanullah mu doon jotaay boo xam ne jotaayu mbokk la ak dund ak nafaraat li nga xam ne moom la bokk ñoom ñu bax koo amal daan ko seet ak yéen daan ko tërale noo xam ne dañuy tànn kenn koo xam ne kenn la ci yéen kenn la ci nun maanaam ci mbokk yi la jox ko benn tomb boo xam ne daf ñuy soxal ñun ñëpp ñun ñëpp en tant que ay euh, euh, télévision Serigne Touba en tant que njabootu Serigne Touba ngir ñu bokk ko nafar Eh, bokk ci jël ay bind xool ay rëq-rëq fam ca amee ñu jëm koo saafara xool yi nga xam ne moo mat a ñoŋal ñu maase koo ñoŋal kenn ku nekk ca waar boom ca féete ci noonu kon la bokk yi tànnoon ci sukkandiku ci xew-xewi jamono ak doxinu àdduna nga xam ne la doonoon njàmbat démb la doonoon ay démb mën na koo bañoo doon tey ngir nag mën ak dund ànd ak dund ak euh, suñu jamono euh, dana tax waxtu wu nekk bokk yi di tànn tomb boo xam ne danañu soxal te dana dëppoo li nga xam ne moom la ñuy dund ci waxtu wañ koy waxtaanee loola waral ren bokk yi gis ne ak yu xew yu baree bari yoo xam ne du ñàkk al ustaz sëriñ Sam dana ñëw insha allah xew na ci biir réew mi ci biir yoon wi ci biir bokk bi jaadu na ñu waxtaanee ko.

li ci soppikuy jamono indi wala lim ci def wala fan la ci toll loolu incha allah mbokk mi nga xam ne mooy jàng nga ñun bind bi dina ci ñëw bu neexee yàlla su ko defee incha allah bokk yi fas nañu ne bu sëriñ sàmm noppee am na benn gaaral boo xam ne des na ko gaaral projection mu jëm ci soxna su tedd si nga xam ne moom la ñu dara jaale tey jataay bi دي الشيخة أم مبكة بنت العبد الخديم عليه رضوان الله سنوبي إن شاء الله دلقة سنوبي خمني موجود ديكر سخنزي تتاو في دانا أم كجل كابل سينتو آه، سنوبي بإذن الله بقية خمني نولين ووانتي سين بقية باحيين بقصر إن شاء الله دانا أم كجل كابل سينتو فاينل يمني الوحنيب دانا جلني بسيالة من مغلقات seen mbégteeg seen jant ci euh, itte yi nga xam ne dagg ngeen mbokk mi nga xam ne moom la bokk yi tànn na tey euh, bu doonoon ci yeneen i jataay dañuy wax mi ngi jànge njàngamu suuf barab sàngam mi ngi jànge njàngamu kaw barab sàngam mi ngi yëngu ci wàllu liggéey ci wàllu éducation en tant que inspecteur ci wàllu làkk arab bu doon ci yeneen jataay waaye jataay bi dafay doonul gan ci genn anam du ci gan ngir ne ci njaboot gi bu ci gan ngir ne jiitu na mu def fii ay nafar ak noonu ci jataay bii nii jiitu na mu def ci ay nafar kon du ci gan moo tax kon daanaka du ñu guddal ci di ko xam ne ndax yéen ñi may déglu bu ngeen ma ko gën a xamee xam ngeen ko ni ma ko xamee kon dañuy wax ni Serigne Sam Bousso rek moom Serigne Abdourahmane Bousso ñu gën koo xam Serigne Dame Mbal mooy def waxtaan wi jàpp naa ne li des lépp xam ngeen ko Serigne Sam ndax bu jar mat leen ko wax eh, ci. Eh, nu mu bokkee ci jëf yi ci wàllu gépp muy ci wàllu bokk gi ci wàllu njàng ak ci wàllu ay taxawaay kon ngir tënk bu gàtt ak bàyyi bu mu la tàmbali bismillah ci bind bi nga xam ne danañu dikk ak ñun dama leen di wax rek ni ixwaani axawaati ibaad arrahman muraxibiina bikum fi huna fi daari rahman أترك لكم السيد السام ابن الشيخ عبد الرحمن فليتفضل مشكورا لديكم ومرضيا عند الرحمن am ne indi na ci politique yi ñu soppi seenu taxawaay c'est donc de di jéem a xool kuy mën a ànd ak ñoom di jéem a xool ah naka la ñuy seet ba gën a yaatal ci seen ñu leen di jàppale loolu ay soppiku la yem ci am politique mën a indi nag ay soppiku ci biir yoon wi bu boobaa comme la ma waxoon ca kaw da gis ñoo xam ne dañuy xool seeni masuuliyey bopp jël seeni responsabilité xool ne dañoo am ay njaboot am nañ ay intérêt yoo xam ne am nañ ko bëgg nañ koo sàmm loola mooy déterminer seeni taxawaay bu boobaa ay taxawaay yu wuute mën naa am ci biir ay kilifa taxawaay yooyee nag mën naa yam ci wàllu politique rek waaye mën naa dem ba am ay jeexit yeneen loolu yëpp dafa mat a xam ngir bàyyi mën koo bàyyi xel xëy na eh, ci wàllu soppiku yu am ci jamono yi am na benn rek boo xam ne bëgg naa ko cee mujje mooy soppiku gi am ci wàllu communication ku ne xam na ne ay jamono benn rajo moo fi amoon ak benn télévision ñu dem ba mu yàgg ay rajo privé am ak ay télévision privé ñu dem ba yàgg biir yoon wi ci boppam am seeni rajo yi bopp ak seeni télévision yi bopp loolu nag lu mën a am njariñ la ci gën a indi ak déggoo gën a indi ak xamante comme ni nga xam ne nii lañuy ñuy def ci jotaay yu mel lii nga xam ne tey dañ fiy xamle bokk gi ni mu demee dañ fi xamle cosaan ni mu demee loolu dina tax nit ñi gën a xamante dina gën a ànd dina indi ak gën a jàppaloo waaye it sasaan bi mën naa am ndax ku ne xam na ne tey euh, télévision yi bari na rajo yi bari na. ku ne xam na ne tey am na ay émission interactive mooy émission yu wax sa xalaat kenn ku nekk toog këram yor téléphone am duñ xam yaay kan nga wax ab xalaat mu jàll directement loolu ku ne xam na ne amutoon te am na ku ne xam ne am na jeexit yu mën a am ci suñu nekkin jeexit yu mën a am ci suñuy suñu ànd ndax da nga dégg ñuy potoxlu ci wàllu ay émission di wax di tudd di gaaral ñeneen ñeneen it jaar ci beneen émission di tontu loolu mën naa indi ay ay ay mbir yu yu yu yu ci suñu nekkin waaye ku ne xam na ne it réseaux sociaux yi am léegi amutoon ci lu lu am jeexit la ci dundum nit ñi dañ ko bàyyi xel ndax bu xoole gone goo gis tey moo xam góor la moo xam jigéen la ak fu mu njàngam mën a toll léegi mi ngi am compte ci yenn réseau sociaux yi léegi compte yooyu ñuy am di ci jokkaloo ay xalaat da ciy jàll xalaat yoo xam ne mën naa am mag ña duñ ca jot moo tax nga gis da dara xew mën naa am kilifa yi fa fañ bëgg nit ñi jëm fa am na yeneen xalaat yu nekk ci suuf di jaar ci réseaux sociaux yi yu ju yu wuteeg xalaat yooyee mën naa indi ay position yoo xam ne day indi mbetteel ci leen da ngay jàpp ne kat baat kili ndigal bu jógee wala wax bu jógee mën naa am jeexit fekk te am na yu nekk ca suuf yoo xam ne ma ngay jeexital ci nit ñi ci yooyu maîtriser ko maanaam xamuñu la fay dox dëgg-dëgg te loolu ku ne xam na ne jamono ji fi ne àgg nañ fa réseaux sociaux yi mi ngi ciy gis ñuy dem ba di ko jëfandikoo ci ay wax yoo xam ne sax du jub léeg-léeg ngay gis ku jëm ku ku exploiter réseaux sociaux yi di enregistrer ay wax dugal ci biir di dal ci kilifa wala ñu demee noonu loola njabootu kilifa googa mën nañoo wëlbatiku def lu mel noonu loola mën naa indi ay ay yëf te loolu ñu ngi gis ne mi ngi rogalaat di am ci biir réseaux sociaux yi ci am ci biir média yi média yi dangay gis léeg-léeg ab émission ci ci boo xam ne da ngay déggaat ci beneen rajo beneen émission boo xam ne émission bii émission sàngam lay tontu émission sàngam lay tontu loolu it lu mat a bàyyi xel la ndax euh, bu fekkee ne amuñu benn ligne boo xam ne mooy définir ne fii kat waree su koo teggi xam nga ay liberté sax xëy na dana naqaree dindi waaye nag war naa am ay li ñuy wax xuduut xamra maanaam ñi fi nekk ji ay télévision ki rajo war naa am ay rëdd yu ñu leen rëddal loo xam ne luy sàmmu àndu yoon wi la luy sàmm jàppaloog yoon wi la ñu xam ne la dañ koy jàpp ne kenn du war a wax lu koy ñaaj wala kenn du war a lu cay mën a am jeexi waaye su fekkee ne amul benn ligne maanaam man nga man nga ne kenn ku nekk yaay xalaatal sa bopp say émission yi bopp yaay xalaatal sa bopp la ñuy wax ci sa biir rajo loola mën naa dem ba indi yoo xam ne mën naa bañ a bokk mën naa indi ak soppiku la goo xam ne buñ ko maîtriser wul buñ ko contrôler mën naa indi ay jeexit ci yoon yoo xam ne du doon yu ñu yu ñu yu ñu gënal ndax euh, surtout surtout léeg-léeg nga gis émission yoo xam ne dañ koy ubbi ba noppi ubbi téléphone bi nga xam dañuy orienté wax ji jëmale ko fenn. loolu nag lu mat a bàyyi xel la war naa am daal liiñ boo xam ne euh, li yëngal média yi du rekk ay intérêts commerciaux waaye mu doon loo xam ne sàmm yoon wi sàmm ànd yoon xam nañ ne ñu ngi ciy góorgóorlu waaye nag bu ñu bàyyee xel gën koo contrôler gën koo sàmm dana doon lu am njariñ kon euh, man diggante mag ñi ak ndaw ñi ndax kenn ku nekk barab ya ngay jaar di communiquer du bok ak barab ya sa morom di jaar di communiquer nim mana indi ak xamanté ak déggoo ak andé man nako indi ak ak ak ak ak ak rawanté masalan dañuy gis kenn ku nek tay boy wax jëmele ci sa bop rek jëmele ci sa wét rek keneen waxe jëmele ci boppam rek keneen jëmele ci wétam rek yoy man na indi ñu dem ba Eh, mu indi ak rawante goo xam ne au mu indi ak xamante ak jokkaloo ak gën a dëgëral ak ànd mën naa dem ba indi yeneen yoo xam ne du bokk ak yi ñu a nu ñuy def nag ba jeexit yi ma wax du indi maanaam soppiku yi ma wax du indi ay jeexit yi ñuy ragal du ko indi ndax ku ne xam na ne xëy na indeegu ko indi bu ñuy wax waaye nag am na ay bawaadir ay yuy feeñ ay signe yoo xam ne bu ñu ko bàyyiwul xel mën naa dem ba jur loo xam ne du ñu gënal nu ñuy def ba jàmmaarloog loolu xoola kon xëy na loolu mooy tomb bi ñu mujj avant ñuy daaneel mooy ñu fexe ba nag li nga xam ne moom lañu ñu Serigne jàngal ca ma tàmbale woon junjoon ko ci taamul ne moo ñu may bennoo ñu fexe ba loolu ñu gën koo dëgëral gën cee yar nit ñi gën a xamal nit ñi Serigne Touba xamalin woo xam ne ndax loolu it lu ba lu mat a xel la sëñ dafa am ay dimension yu bari sëñ touba boko xolé am nañu ko jappé mu jaddit rek manam ko xamné ne réformateur le ku ñew di manam defarat jamono am ñu ko jappé nitu yalla, côté aspect bobu rek le xol ci mom waye lim indi ngirum njàngale bu mëna défar société bi ñom solo yët yu am ñu xool ne moom kat nit ku maanaam ku am ab xariya la koo xam ne génie la ko yàlla defal nga xam ne moom tënkuñu ko ci diine waaye dañ ne nit côté humaniste mu sëñ tubaa la ñuy xool sëñ tubaa nag day lépp waaye ñun fi mu ne nii kenn ku nekk dangaa wut benn aspect ne lii mooy sëñ tubaa lu dul loola da ngay jàpp ne bokkul ci yoon wi sëñ tubaa boo xoolee ci biiram ñim yaroon am na ñoo xam ne da leen a jëmale woon ci jàng jàngale rek xam nañ ne Touba gii bi mu nekk bi mu fi nekkee am na ñoo xam ne sax seen liggéey bi yëpp mooy jàng alxuraan am na ñoo xam ne lim leen sasoon mooy jàng bis bu set juróomi xis am na ñoo xam ne ca lañ mokkale alxuraan ca mokkal wuñ ko woon waaye am na xam ne ci liggéey la leen doon defloo yëngutu dañ ko jëmale woon ci commerce am ñoo xam ne seen yëngutu ci jàngale lañ ko jëmale woon ak ñoo xam ne seen yëngatu ci liggéey ca tool yi lañ ko jëmale woon loolu kuy xool mag ñi daroon sëñ bi da gis li ma wax waaye ñun tey kenn ku nekk da ngay bëgg ni wat wet ga ma doon yëngu wet googaay sëñ Tuuba waaw kay jàng ak jàng ak jàngale ne daal lu dul jàng ak jàngale du xikma loola rek fa la war a liggéeyal sëñ bi am ku ne daal dem ca tool yi rek ca lañ war a liggéeyal sëñ bi maanaam nga xam ne suñuy gisiin gisiinu sëñ bi léegi day wuute ñun ñëpp nangul nañ sëñ bi waaye kenn ku nekk am na aspect booy xool ci sëñ bi jàpp naa nag war nañu gën a góorgóorlu ci wane sëñ bi dimension ba kenn ku nekk wet ga nga mane it du tee nga bàyyi xel sa moroom ne wat ga mane wet googa it mën na caa am ngërëmul sëñ Tuubaa loola buñ ko defee kenn ku nekk dana xool bëtub sa moroom naw la def bu ke nekk nawee la sa morom bi def da ngeen mën a ànd da ngeen mën a déggoo waaye kenn ku nekk bu xeebee la keneen nekk jàpp ne lam nekk rek kon loolu njàngalim Sëriñ Tuubaa daal war nañ koo gën a dëgëral wan koo gën a jàngale war cee gën a yar nit ñi ndax tey da gis ñaar yoo xam dañuy jiyaloo lool ci comportement ak doxalin te kenn ku nekk sëriñ bi la def muy référence am kon nag loolu mooy am nañ liggéey boo xam ne jot nañu am benn socle minimum boo xam ñëpp dinañ ci dëppoo kenn ku nekk xëy na bu dee spécialisé wu ci wet mooy spécialisé wu ci wet googu waaye bokk na ci li ñu war a bàyyi xel mooy li ñuy wax communication ci biir yoon wi maanaam communication interne maanaam li nga xam ne kilifa yi ñu ngi koy def di jokkaloo di diisoo ci seen biir loolu lu am solo la lu luy dimbale yoon wi la xam nañ ne kilifa yi kenn ku nekk ñi ngi dem lente ñi ngi dem lente kenn ku nekk dana dem sa kër moroom sa moroom ñëw sa kër ñu séq jàmm waaye nag jotaay boo xam ne ñoomu neen ñoo koy séq di waxtaane lu ñu bokk loolu dafa mel ne war nañ ko gën a mën a dooleel war nañ ko gën a mën a saxal ndax kat jekki kenn ku nekk mën ngaa jekki séq ak sa morom jàmm séq ak sa morom ànd waaye ñiy dox di yàq ci diggante bi loolu da leen di may occasion loolu ko ne xam ne bi fi sëriñ bi doog ko jógee lettre bu sëriñ Mbàkke Buso ba mu bindoon feeñoon na ja kenn mag mu nekk toog fa nga toog waaye nit ñi doon dox ci diggante bi di yàq ba meloon ne crise dafa am ci sëriñ Mbàkke nee na moom am na lettre bu mu bindoon monsieur Privier defe daal ku ko liir da nga ca gis lu mel noonu nag waxtu nekk war nañ koy bàyyi xel mooy kilifa yi di jokkoo ci seen biir suuraa bi war a am di am ci seen biir loolu sëriñ Mbàkke Buso am na luñ ca bindoon waxoon ne ca sab ne wax ne diisoo moom ki gën a màgg wax na caag ki gën a màgg ci ku ñuy waxal mooy yàlla wax na ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam te yonent bi alayhi salaatu wasalaam bari woon lu muy diisoog saxaaba yi la ridwanullahi alayhim mu ne kon diisoo googu mu digaloon diisoo yonent bi alayhi salaatu wasalaam ngir dalal seen xel la ak mu nekk sunna soo xam ne dañ dañ koy jëfandikoo ginnaawam ndax nee na maanaam demee sax xalaat waxtu wu nekk loolu lu ŋàññi la mu ne képp koo xam ne yaa ngi faral di diisoo soo amee soo su fekkee ne la ngay def lu jub la dees na la ca tag saa boo juumee it dees na dogal gànt kon mu ne lu diisoo lu am solo Sëriñ Tuubaa yi radiyallaahu gis nañ ay exemple yu bari yoo xam ne daana wax mag ñi mbir daana ñëw mu bàyyi mag ñi wax ci seen xalaat gis nañ ko ca ba ñuy wut ay soldat gis nañ ko ca bañ fi bëggee defar école ay exemple yu baree bari yoo xam ne sëriñ bi dafa wax mag ñi jox leen joxe xalaat bañ dégg xalaat ya loolu am na kon yu mel noonu lu lu ama am solo la ci diisoo boobu muy am ci diggante euh, euh, kilifa yi bokk na ci li ñu xel moom moo tax mooy li ma doon junj léegi ci moyen de communication yi muy rajo yeeg télévision yi war nañoo am politique boo xam ne rëdd yu leen di rëddal ndax ñi ngi góor góorlu kenn ku nekk di góor góorgóorlu di bëgg a tasaare jàngaleem sëriñ bi di bëgg a tasaare yoon wi waaye da ngay gis koo xam ne day tegu émission bu émission booba jeexee mu indiwaat beneen émission buy daj la émission bu njëkk ba doon wax waaw nga xam ne safaan li kii doon wax kële doo xamati kon télé bi moom ban ligne la am ban ligne la am wala rajo bi ban ligne la am léegi nag ab ligne moom ku ki ku yilif moo koy rëdd ne leen kat war ngeen góor góorgóorlu di def lu leen neex ci góor ci ci ci. waaye nag am na ay yoo xam ne moom bu leen ko bàyyi mu jàll loolu am réew mu ne dafay am communité bu nekk loola daf tey am loolu it lu mat a bàyyi xel la ñu fexe ba moyen de communication yi nekk luy liggéeyal yoon bi waaye lii ñuy def tey jotaay yu mel nii lu am solo la mooy exploiter jotaay yi diine yi am ci biir ngir gën a dëgëral ànd bi ngir gën a dëgëral jàppaloo bi ngir gën a dëgëral jokkaloo loolu yaakaar naa ne gis nañ ne mi ngi am waaye lu mat a gën a dooleel la ndax tey njabootu soxna ummi gi fi ñi nga xam ne ñooy njabootu sëñ Souhaïbou danañ daal di xam ci seenu nekk yi buñ dajawee ëllëg gën a xamante loolu lu am solo la waaye gis naa ne daayira yi di liggéey ay liggéey ndax li ma doon wax léegi ab ànd la koy jëmmal mooy ñu mën a ànd liggéey ab ànd la koy jëmbal mooy ñu mën a ànd ay liggéey ndax ay boroomi xam-xam ko séq di ay ndaw ca boo yet yàlla joxee ngay ndaw jox la xam-xam la dara nga am bokk fu baax yaakaar naa loolu ku ko yàlla cëral jamono ji cëral na cër bu rëy kon loolu war nañ ko exploité kër bu nekk ñëpp ni ñu ànde di defar bis di ànd ñu mën a ànd di liggéeyal kër googee waaye ñoom ci seen biir ñoom ñëpp ñu def benn fédération boo xam dañuy liggéeyal yoon wi ñoom ñëpp liggéey yoo xam dañ koy bokk yaakaar naa loolu lu ama am solo la kon li may jeexale rek wax ne Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu ah, yàlla defal na ko xéewal xewal bu ñing ci xewul xéewlu ba di xewal bu nek nak dafa laaj sante dafa laaj sante kon war nañu sante ci xewal yi ñu yalla defal ci boole serigne touba waye nañ cey sante nak ñu fexé ba sammu lam ñu fi bayé def la mu laaj kenn ku ku nek fa nga tollu nga def la nga man kenn baña xeb bopam ñu fexé ba jeexiti jamono nga xamne te lu mënta ñak la jamono ami jeexit mënta ñak waaye ñu fexe ba jeexee ci jamono daal du ñu yàqal dara ci li ñu war a ni ñu war a jàppee li ñu fi Sëriñ Tuubaa bàyyil radiyallahu anhu yoonu mu jaar ay xëzaat yu bari waaye yar ak mat ga gi nga xam ne ña ko ña xew-xew yooyee ñoom la fi fekk tax na yoonu mu jéggi xew-xew yooyee jéggi xëzaat yooye continuer di dund loola waxtu wu ne ñu xam ne lu jamono mën a soppiku am na lu ñu Sëriñ Tuubaa bàyyi ñu ca jàppee jamono lu ñu mën a dara kon yàlla yàlla euh, def nangul ñu lépp luy juumte yàlla na ko yàlla jéggal lépp lu fi baax yàlla na ko yàlla defal tuyaaba wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu bokk yi nga xam ne ñu si seen changement taw te jotaay ñu ngi feeñal seen mbégte ci liggéey bi nga xam ne def nga ko ci ndax xat-xat yi itti li mu bari bari ak li jamono ji xat-xat nan nga nga leen nangu ñëw di waxtaan ak ñi nga xam ne ni def nga waxtaan mu doxe ci méthode bi nga xam ne moom lañ la xame te mooy li arab di wax xayrul kalaami mu qalla wa dal nekk si am njëriñ bokk ma ci sant waaye sëñ Sam génne na fii bokk yi ay bind yu bari yoo xam ne jàpp na ne ñi nga xam ne ñoo woote jotaay bi liñ ci jublu mooy bind yi nga xam ne génne na fii mu bokk ko nafar xool rëq-rëq yi nga xam ne feeñal na ko ci waxtaan wi mu gaar yoonu murid te jamono indi ko nu xool nu koy safara yi nga xam ne tey aki la lu yoonu moom la ñu fexe ba ñu ñoŋal yoonu moom dafay gis la ndax sëriñ bi daa indiwul lu génn li nga ji bi lépp sallallahu alayhi wa sallam indi moo tax yoonu mu tax contradiction ak l'islam te l'islam dafa am ñaar yoo xam ni eh, daf ci am ñu war koy ñu ci war a bàyyi xel mooy ay sawaabit ak ay mutaxayyiraat sawaabit yi eh, bëgg modernité ak bëgg ànd ak jamono war tax ñu remettre ko yi nag moom jamono bu nekk ak yem ciy indi hmm. bu boobaa day bokk ci xereñu biir mu adapté ma adapté loolu lay valable ci yoon yoon moo defoon ay xawaabit yoo xam warut a changé jamono warut a ba ñu négocier ci wala ñu maslaati daf caa bokk nag yoo xam ne soppiku jamono surtout ci wàllu politique daf ñoo yóbbu des fois de bonne foi ci ñu négliger négliger loolu ba wala sax ñu remettre ko en cause mooy li nga xam ne moo gën a jox yoonu murid doole muy ndigal genn kàddu googu nga xam ne lu ñu liggéey lu ñu réaliser ci lañ ko def ay nit dem nañ ba xam ne li fekk murid yi ñu ngi nekk benn benn kàddu di leen tënk di leen def loo ko dindiloo lu ñu leen mën a dara léegi nag ñuy doxe principe bu farriq tasud

da ngay gis sama mars go xam ne ëlluwa sori wut yar bi wut de nga señ bi dagasi ben ligne bo xam ni ci la tek ñep mu dem ci radio wala télé wax fa lo xam ñi bëgg yaq dañ koy exploiter wane ni amna ya une voix discordante li señ wax kat bu andum ci ci bir yoon demé gul non demé gul non ñu deme dem ba lolu juroon ñu ñetti façon wax yo xam amna am ci yoni ba nga xam des fois bu mbir amee murit yi di ci diglu Tuubaa ngir xam nu ñuy doxee dara du leer ci ñoom parce que ñett yooyu dafa dem ba tasaaroo léegi ci kàddu yi génne ci yoon mooy li sëñ bi wax nga xam ne ñun ñëpp suñu nopp ak géñu moom moo ñu may sëñ bi wax ak li ñu waxal sëñ bi ak li ñu wax loolu sëñ bi yooyu nag ay def-def la yoo xam ne moo dem ba jur loolu bokk na ci li ñuy néewal doole bokk na ci. cohésion jàpp jàppoo gi nga xam ne yoon yi amoon na ko te ku leen weg weg weg leen ci mooy seen bët yàlla ak sëñ bi fees ko ba dara impressionné leen dara gondi wu leen dara dara dara dara sa gondi yombul waaye léegi dem nañ ba euh, wayefal fas-fas euh, boobu bëggaloonu àdduna bëggaloonu pañatum àdduna ba tax yu bari ci la ñuy jaar ba mu am doomi sëñ Tuubaa yi nga xam ne nekkoon nañ fi ak ñu sëñ bi formé eh, nitu àdduna ku ne borom daraja ju ne recevoir nañ la waaye bis boo fay jóge bis bu ñu tàggoo yow danga leen yóbbul ñaar di nga leen wekk di nga leen naw di nga leen wekk ndax danañ la wan ak doylu gu mat sëkk ak suur gu mat sëkk di nga leen naw ndax danañ la wan ak njàmbaar ak teraanga juñ la jëfal joo xam ne sa dara du ca dem léegi nag danoo dema dem ba euh, niti adduna yi euh, nun nooy daw seen ginnaaw nun nooy sàkku seen mbégte ngir loo xam ne li ne ci seeni loxo nun noo leen ko jox damay wax ne bu fekkente ne nun xam na li sunu wàccuwaay ci réew mi euh, danañ bàyyi xel ne damaa ngi koy tàmbalee ca kàcc yi yilif ñëpp muy président de la république ak ministre yeeg mboolem ku fi yoroon ba tànkal adduna nun nooy seeni kilifa nun nooy seeni i njaatige ci nag nooy population bi nga xam ne ndongo tànk yi noo leen ko jox ndax noo leen fal bu weer dee noo leen di fay ndax suñu impôts yi ak suñu taxes yi ñuy fay muy la contribuable ca lañ leen di fay ñoom kon ñoom suñuy surga lañ léegi nag li ci garaaw mooy dañu dem ba ku ñu tuddee kilifa mbooloo di la déglu say wax di engagé mbooloo mu baree bari say position di engagé mbooloo mu baree bari ngay dama dem ba ngay wecceek euh, li nga xam ne moom la Sëñ Tuubaa defal ci yëfi adduna yooyu alal jañuy dajale dina ko jox ëdd yeey dongo yi dongo la parce que astafurlah maa bëgg wax impôt dongo yi la ak seeni euh, taxe te dongo yaa ngi la koy jox dongo yaa ngi la koy jox te la ngay Sëñ Tuubaa ji gis ngeen bi ñu demee ba jamono muur suñuy bët ba nu weccee ko lii di xew danañ xëy xam ne dongo yi moom sëñ Tuubaa mooy seen sëriñ loolu bëgg ñu xam ko bu baax a baax a baax sëñ Tuubaa dafa def teraanga fii ci réew mi def ko ci njaboot yi def ko ci mbokk yi képp koo xam ne nii ndombal tànk la takk ba tax nga di ko euh, bégal ba tax nga sàggane li la sëñ Tuubaa defal ndombal tànk loolee sànq la ko takk te fekk na la ak teraanga yi te balaa yàgg dina ko teg bàyyi la ak teraanga yi moo tax waruñoo wecceeg liggéey sëñ Tuubaa bi ak dara dara dara dara danaa leen ci jox mel ni misaal Abdoulaye Wade 2000 dong la nekk président 2012 mu jóge fi Macky Sall mii 2012 la ñëw nekk président gën ngaa sori 2019 mu jóge fi ndombal tànk lii mu am barki démb la ko am ñu bari ñi ngeen di dégg ñuy fontoo sëriñ si ay journalistes ak ay ONG ak yu mën mënta wax bi Macky Sall nekkee njiitu réew bi dong lañ fi tekki dara bis buy daanu seen ndomb tànk yooyu daal di wàcc loolu yi nag warut a tax kon terangay sëñ Tuubaa ji nu weccee ko ak dara talak loolu bokk na ci cohésion bi nga xam ne yoonu murid amoon na ko te sof ko jamono dem ba ñu di ñu yóbbu ci ñu di ko fi bàyyi di ko wecceek leneen loolu dañ ko war a xam bu wér bokk na ci li nga xam ne sunu jàppoo amoon na te jamono ji ñu ko dindil mooy léegi li ñuy def duñ waxante si dëgg dañuy ànd jayante buñ tàggoo jëwante loolu du ànd mbokk du ànd mu sell ay bokk dañoo war ànd ci dëgg te yàlla tax Serigne Touba lu fi waay am ci yoon wi daraja joo mën a am moo la ko jox waaye teewutal dëng yu mu am mu àddu ci doomi Serigne Touba yi nga xam ne ñoo jiite woon yoon yi ñoo jaboote woon ñëpp waaye lépp lu masaan xew loo xam ne ni kàddu daf caa war a jëpp ñu war koo jubante dañ ca daan àpp

les grands dignitaires de la confrérie mboolem kër kilifa yi tàmbale ko juróomi sëñ Tuubaa ak kër xalifa yi ñi nga xam ne ñoom la sëñ Tuubaa defaroon tàmbale ko ci rakab yu baax yeeg seex seen defaroon da ci daan dañ ci daan diisoo nga xam ne xëy na nekkutoon benn conseil consultatif bu officiel boo xam ne dañu naan ñii la waaye nag lu ñu saa yëkkati ba ñëpp dégg ko ci rajo wala ci télé fekk nañu waxtaan ci kàngami yoon moo tax lu masaan jug rek ñëpp dañuy adhéré waaye diisoo boobu bu ñu demee ba di ko bàyyi ay benn bennaati groupe dégg di doxal nu leen neex ci tour yoon loolu day indi ay voix discordante day indi ay voix discordante mooy ñu yëkkati kàddu ne sëñ bee ko wax ay nit dem wax leneen lu safaak loola safaanoo ak loola parce que nag sëñ bi nunu nee na de xamante leen bu baax mbir yi moom man dama koy wax toujours murid yi lépp loo xam ne ni dafa jóg sëñ Tuubaa tax sëñ Tuubaa kese la ko murid yëpp danañ ci adhéré waaye nag dafa am loo xam ne buñ demee ba jamono andi ko ay benn bennaati nit ay groupe ñooy jël di doxal seeni i pour seeni i intérêt yi bopp mu bëggul kàddu yoon wi loolu balaa xeli murid yi analyser seen i xol mooy njëkk a làkk loolu def defu Sëñ Tuubaa def defu Sëñ Tuubaa donc loolu dañ ko war a bàyyi xel bu baax jaayante bi dañ ko war a bàyyi di waxante dëgg ñu yéenante lu baax Sëñ lépp moo ko liggéey kenn mënu fi xañ sa morom lenn damay wax toujours ni. lii nga xam ne si moom lañuy ñuy muy añu añu yoonu murid di liggéey Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa rekk moo doonoon ki xëyoon dem marché ci ba marché yi naqari mu dugg andi dem taxani ci waxtu taw matt jafe lool këriñ tooy xepp muy upp ak boyal ba mu takk mu togg ba mu ñor xom mu yekk ko ci cin li teg jël cunwaar gi nag di tibaate tibaate bi muy tibaate nag seetu ndab lu ko jégué ba diko laal sétu ndab lu ko sari ndab lu sét rek ndab lu sét rek la koy firndel moy liggéeyam bi ñi ci sétu ñi sant lam fay ci gëna neew señ juba limu li ñi ci sant mbakk ñoo ci gëna neew ñi ci sant so ñoo gëna neew kon bu doon top ak mbokk kon ñooñu ñoo ci ëppale ñooñu ñoo ëppalé euh kon noir bi mo moko yor diko tibaté té ni do doo la koy tibaté ndab lu sét rek mu tibal ñepp nag ñëpp bu ñu nee neexoon mën nañuy dund fii ci àdduna ba def àjjana mbedd Dubaay sax mën nañ fee daje bañ a daje te ko ne sa mbir dana jag kon luy tax ñu fi noonu ak di xeexante da koo jëru da koo jëm te lu bare bari danañu koy yàqal ay bokki nen lan la mag ñi liggéeyoon nag mooy fexe ba kër gu ne ñaari doomi Sëñ Tuubaa yónni Seexub Sët sëtub sëñ doomi Sëñ Tuubaa Seexub Sëñ Tuubaa Seexub Sët ñaari télé bi Sëñ Tuubaa ñaari Seex Sëñ Tuubaa Seexub Sët këru murit goo dugg ñëpp jaxasoo da ngay kër goo xam ne ñii talibé dara xudoo la sëñ dara xudoo sëñ ñii kër sëñ Fallu ñii kër Cheikh Ibra nangam nangam loolu li mag ñi liggéey la buñ demee ba jaxasoo googu nag ñun léegi euh, yóbbootuñu ci ñu ñoŋal ko yóbbootu ci ñu sàmm ko ngir xëccoo ay njëriñu àdduna bu boobaa réere nañ lu baree baree baree bare tayit nag tayit nag euh, am na yooyu xew yoo xam ne foofu la ñuy yóbbu bokk na ca mooy nit ñu négligé xam-xam nga lépp ci xam-xam la ko lal ñu sàggane xam-xam jàngalatuñ njaboot gi jàngalatuñ njaboot gi da ngay dem ci daara yoo xam ne euh, la fay mokkal alquran ca ba jamono di jamono sant yañ ko xame woon ay minorité lañ fa bu fekkee am nañ fa bu fekkee am nañ fa ñëpp war a jàng waaye dama bëgg wax na rek renversement de situation mi nga am boo xam ne résultat yi ci kanam lay ñëwi te kanam lay ndax ñoo xam ne dañu leen pressentir ñu war a jiite mbooloo te jàngaluñ leen formé wuñ leen yaruñu leen bis bu ñu jiitee mbooloo def musiba mu rëy rëy rëy te mi ngi am talaga li ko waral mooy négliger gi ñu négliger xam-xam léegi nag yooyu yëpp bokk na ci li ñu ci yóbbu mooy bëgg lu yomb ak bëggu nof laay lépp dañ koy wéer ci ne sëñ bi defar na lépp sant rek sëñ Tuubaa defarul lépp de sëñ Tuubaa defarul liñ mën liñ mënut la defar liñ mën daf ñu koy bàyyee ñu jéem ci yàlla daf ne laa yukallifu llaahu nafsan illa wusaha li doomu aadama mën a defal boppam yàlla du ko ci defal dara moo tax li ñu mën sëñ bi duñu ko defal sëñ Tuubaa defarul lépp bokk yi li ñu mënut la defal léegi nag li ñu moom bu fekkente ne dañ cee sàggal ba koo wéer sëñ bi bu boobaa ñeneen ñëw def ko rek ñeneen ñëw def ko rek lii daal moom dama bëgg ñu xam ne cohésion bi nga xam ne amoon nañ ko ba ku ñuy wegg wegg na ci ku ñuy respecté rek respecté nañ ci ñu ngi koy dammat par ndànk-ndànk te ñu suñu bopp noo koy dammat wolof nag nee mag wala ponkal su ko bukki dabee ca doxin wala su ko bukki doxee dabee ca doxin wala yoonu murit bu njëkkaan kàddu gi genn lay doon baat bi benn lay doon léegi nag mbir day xew fu ne nga dégg fa waay def conférence de presse fii

mu demal boppam di wéeri firaw na asalaamaaleykum léegi waxoon nañ ma ne ma mel ne li bëggoon a lépp ki doon waxtaan léegi ci thème bi indi na ko muy mbooloo bi nga xam ne bëgg sëriñ bi bëgg na ko ci njabootam te daan ko ci yar ak yar bi nga xam ne it sëriñ bi daan na ko yar ay doomam rawatina doomu jigéen yi te defe naa ne buñ nee njàngaleem sëriñ bi li tax ñu naan njàngale bi dëgg dëgg dëgg mooy buñ jëfee ñu xam ne ni jëfi ku génne ci sëriñ bi te loolu la daan yar ak njabootam ak njabootu murid yi yi jamonoonteel yépp yar boobu mu defoon ci soxna mi mu def ko ci ñiñ ko joxoon ñépp ba ñu am diine am lislaam ba noppi ànd ak seenum xel mën a jëflante ak ñëpp man man loolu liggéeyu kër ni ko ni mu ñëwee ci reportage bi léegi nga xam ne soxna si am na tawfeexu sëriñ bee ko defal lépp am na tawfeexu yi daan na jëfe ndigalul sëriñ bi lépp ak lu mu metti metti ak lu mu mën di doon ak dundam gépp it da ko sacrifice ci jëfe ndigal li nga xam ne nag soxna si bëgg na waa kër Serigne Souhaïbou bi muy lii nga xam ne dañ ko ko tudde dañ koo tudde soxnaam mi dafa mel ne dañoo xam démb ndax way waajuru soxnaam bi muy soxna Penda Touré ba mu fa amee ci Serigne bi Mouhamadou Kabir moomu ba mu wàccu liggéey ginnaaw bi dafa amaat soxnaam bi mii biñ demee ba jëmmi jamono ba Cheikh Souhaïbou bi mii gane jamono soxna Penda dafa wax ne man de Cheikh Souhaïbou bi mii laay xool yi daan ko doxal ba soxna si bu fi daan di fekk lu bari muy tëju waaye buñ ne ko soxna Penda moo ñëw ko bokkut ci ñu may tëju ñu ko daan doxal kon bu ngeen ñëwee ko yi delloo ca booy booy ngeen a fàttali démb occasion la boo xam ne dana ci ñu gën a xam gën a jàppoo gën doon benn yàlla si loolu lay defal tawfeex xam naa bisimilah sëñ bi ñëwee naa ko ko jottali xëy na ni ko sëriñ Xalil léegi ginnaaw bi mu jotalee kàddu yi soxna Pend mi nga xam ne moom mag mott lil ko kàddu yi dañ koy tàmbulee ci lim délégation bi nga xam ne ñoo fi teew ngir mu jëmmal ak màndargaal lim ne soxna si kat yitte jim ne woon dana ko def ci bis bi ba mbokk yëpp yëg ko mbokk yi yëg nañ ko waaye mbokk yi ànd nañ ko ak moom teew si nañ fii jataay bi soxna gas mi mu mi ngi fi ak rakkam nuñ ko wax soxna mi Touba moom Cheikh Fadal bokk na ci délégation bi soxna Ndooto Mbàkke muy xalifa ci délégation bi soxna mu xawa moom sëriñ Sidi Muxtaar xafisahullah bokk na ci délégation Mouhamadou Mbacke léegi ci bokk na ci délégation bi ci njabootu soxna Mbacke Sam ñi ñuy tudd ñëwee ci leeral bi Abdou Mbacke Sall ak njabootam teewuñ fi ci njiital Serigne Bara Mbacke ak ak soxna Assa Mbacke Ilimane eh, ak seeni rakk njaboot Serigne ci njiital Serigne Mbacke Geroon ak soxna Bintu Mbacke ñoom teew njabootu sëriñ Basiiru Mbàkke Saam ci njiital sëriñ Bousso bi Mbàkke ak soxna Mame Asta Mbàkke njabootu soxna Kala Mbàkke ci njiital sëriñ Abdou Mbar Ndiaye ak soxna Musli Ndiaye ak seeni rakk njabootu sëriñ Mahmadan Marema ci njiital soxna Fatou Mbàkke Mbàkke ñoom ci njiital soxna Xadi moom ndindi moom Cheikh Abdou Fatah soxna Cheikh Abdou Fatah ak soxna Abi Bakke mom Serigne Abdou Fatah moom Cheikh Abdou Fatah njabootu Serigne Cheikh Diop Marema madam ci njital soxna Say Diop momi it teew soxna Khalid Siise Marema madam ci njital soxna Mam Fatilo mi nga xam lu bari ci yëngu amna ci taxaway yu am solo njabootu soxna Penda Touré mané ci njiital soxna Mame Fatou Kandji ak soxna Maymouna Kandji ñoom it teew nañ fi Mame Penda Mbacke ci njiital Serigne Modou Mbacke iman ak Serigne fallu mom Serigne Pahe mi doon wax léegi njabotu Serigne Yacine ummi jeng mi xamne mo khadim moom radiyallahu anhu wóolu woon ci ummi ba joxoon ko ko ba am ci wax léegi it feeñal ko ci momit Serigne Moustapha jeng am njabot bi oum el delekasyon. E bakour sè lig stolen mi tè Oman pou mindè mon sè li aou toulè an lan te grand aou a zap gelaw gal ñii daal ci tënk ñooy ñi nga xam ne ñoo toggal rek nga xam ne ñoo ñëw jë soxna mi Mbakke moom Serigne Mor moom it bokk na ci délégation kon mbokk yi li Serigne Falilou wax léegi ci jiital xëy leeral gi dana baax tuuti ndak bunneye son o umi, nyulim, nyiyulim, chikel yu faten chiko, banan mwenye nyon te wal, gjetay vi dana bach, nyen niki, nyan nifite yo, kham nyi lan mwenen djotole, a san o umi be, nyoutude ko abdis, nyumanko te wal. Lolle kilen yu tenk tenk ou gat. Kin mwenye mwenye yato, chikwet son o umi mbake, nye kono potasyon wak leyi, mom, yal dogan nan, ci askan am bu doon aw ay xeet ab jaaful ab jaaful nag boo tuddee da nga tudd ñu si cee tudd ku mel ne man Thierno Ibrahima Fati ku ne maam Cheikh Fall bari ab jaaful moom la ci aw askanam soxna ummi way juróom bu jigéen tudd soxna Penda Touré Serigne Mor Mutu fa Touré bi nga xam ne moom moo jur buñ ca delloo dana tax ñu mën a xam ñenn ñi ñu tudd ci délégation bi lan moo leen ci boole sëriñ Mor mutu fa Mbombe moomu di wajuru soxna Pend mi juru Cheikh Cheikh Khadim mi radiyallahu anhu moom mooy wajuru sëriñ Mokhtar Touré mu juru sëriñ Abdul Karim Touré kon buñ nee sëriñ Bachirou Touré ak ñi mu àndal teew nañ ci boobu sëriñ Abdul Karim Touré mu jur Alaaji Cheikh Touré ngin ngi néew mu jur sëriñ Bachirou Touré ñi ñuy wax léegi di sëriñ Abdul Ahad kon buñ nee bokk na ci délégation bi danañ xam ne kon loolu moo ko fi moo ko ci jot sëriñ Mor Fouta Foma ba léegi mooy wajuru soxna Aminta Mbaax soxna Aminta Mbay mu juru sëriñ Cheikh Touré moom sëriñ moom euh, Cheikh Abdoul Karim Touré kon ñooñu bu ñu waxee ci wet googu loolu moo leen ci jotale njabootu soxna Penda nag soxna Penda bi nga xam ne mooy wajuru soxna ummi bi nga xamee ne Cheikhul Khadim radiyallahu anhu ab nu yëgal tamit ni bokk ci bokk yi bàyyi ko ci yoon yi ñëw mu ànd ak baka Cheikh Chane bu jot yi mooy sëti a Cheikh Mahamadou Moustapha ci njiital Serigne Ahmad Mbacké ak sëti a Cheikh Massamba Kanni Bousso ak Serigne Mbacké Kanni Bousso kon ñu ngi ñaan Serigne Chane bu Mbacké moom Serigne Cheikh Seye mu ñëw jël kàddu ci turu day turu dara ak loo rahmaani rahim mu am wolofal boo xam ne ñu ko bindoon ci sëriñ Chouaïbou ñu bëggoon ko jàllale mbokki jullit ñëpp dégg ko bismillah aouzu billahi min na shaytaana ma jóg te xamle cheikh abo diyaana aouzu billahi min na shaytaana ma jóg te xamle cheikh abo madiyaana bàyyub sëriñ cheikh mbakke ak faddiilu yow sunu yaaram mbakke ñoo la wóolu su ngeen ma dégloo tey ma xam ne mbir ya ngeen xam ne cheikh Souhaïbou raw na mbër ya ci saahir ak baatin amul ci soo daan maasak moroom ku yàlla ngemb day daan yow ki xamul cheikh Souhaïbou boo yanam ba déglul ma wax la ngir nga xam baatin ba ci ama xal sa sin la gane àdduna seytaane tiit ngir xam ne diine sampe na bisub keroog la diine dal di xaaju ngir mbég mu rëy seytaane daw ba séeju kitaabullaahi dég daara yi dekki góor ak jigéen koo gis mu ngàbbu jukki te fu mu xam ne doomi soxna moo nga fa mu dem fa jël ko yóbbu daara daj ko fa saxoo di yar te kum ne baa nga mokkal fekkee jotaayam rekk doy na njëggal du jëw du xaste kenn du jëw ci booram lu yàlla bëggul bokkul ci waaram fa sayxunaa Bamba tegoon tànkam ba foofee la teg tànkam di roy yonent ba lu baax mu digle gën a yem seytaane jaaxal iblis ndax moom lu rëy fa nit bañ fa moom yées mayoto fondaa tele doo ko jëndal ngir yëw taar ba foo tegee mu randal teral la ñaanal la nga dem mu gaf kanam tàbbal ca biir wéttalikoo boroom kun ku màndi leeri yàlla duy ba noppeeti naa gis lu fi jar di sëriñ soxna yi bu yàlla moo ko géejal lu jiitu dunyaa démb lan ko waajal yërmaande ja tabam juréy ja fàddu na yàllaa ko noppee dénk nit ci àdduna du denc ko par gis ku gàddu aajo ndimbal njaboot la kum teral nga gaajo du daw ko ñàkk

te liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy liggéey te daay association bi nga xam ne moo lëkkale association bi yëpp àndandoo ko lépp di am ci seeni la kon ñu ngi leen di jox dalal ci barabu tedd bi ñu nekk nga xam ne mooy Daaru Rahmaan Daaru Rahmaan bokk ci benn ci kër yi nga xam ne Seexul Xadim sañcoon na ko kon muy seen kër ci njëlbeen tàggat la xëy na ay paan yu am ci wàllu électricité bi la yoo xam ne bàyyi wu ñu woon xel mel na ni boobu la boobu ak leneen ñuy jokkoo ak waa Sénégal te yaakaar naa programme bi bokkoon na ci li ngeen waxoon ci CRD bi kon mel na ne waroon nañ ko waajal ba lu mel nii bañ fay kon ñu ngi ko jëli mbokk yëpp barab bi tàng na lool ñu ngi ñu ngi ciy jëli bu baax di leen wax ne it am na ci njabootu solution yooyu ñu fi teewal di suñu bàjjen mënees saa jiital soxna muy Mbacke moom Cheikh Abdoulaye doon dër bi seen mag ñëpp ànd ak soxna maam Dieng Mbacke ak soxna maam Fatou Dieng Mbacke ak soxna maam Fatou Nawel xam naa ñoom ñoo fi teew waroon na ànd ak sëñ Abdou Samad ni ma ko waxee léegi ba ñu ngi ñu ngi koy seetlu waaye ci. tur daayira tasawur saxaar bi nga xam ne moo nekk jabal sëñ Soxna yëpp ñu ngi nuyu mbokk yëpp di ma ko wax di jiital ci nuyoo boobu nag njabootu soxna Oumy Mbacke nga xam ne bis bii moom lañ ko dara jaare moom lañ ko seetee di rafet lu baax seen taxawaay ndax gis nañ mobilisation bi nga xam ne def nañ ko gis nañ coono yi nga xam ne daj nañ ko ci bis lépp ngir yàlla ak ak mbokk ngir yàlla ak yëg bu ñu yëg cër bi moo ko waral kon mbokk yi ñu leen di xamal ne suñu xol seet bu baax am na mbégte loolu ci seen teewaay ak ci seen taxawaay mel ne la nga xam ne moom bis bi ci taxawaay lépp matale ngeen kon ñu ngi ñaan ci daraje seen xarit bi ñaan ci daraje seen suñu maam bi tedd yooyu suñu borom sàmm leen leen di jaar lu ñuy boobu nag ak cant yooyu yëpp ak ngërëm yooyu yëpp ci turu Serigne Bara Mbacké mi nga xam ne moo jël délégation bi ànd ak mboolem ngir fi si ko ànd ak yëpp di sant yi mboolem délégation yi nga xam ne ñëw na fi te bàyyi ko ci yeneen kër lim nañ ko du jar ñu ci jaar waaye yëpp. mbooleel daayira yi nga xam ne dañoo sosu ay kër di daayira sës commencé ko jébbal Cheikh Mamadou Moussa ba ci ak kër yëpp kenn gisu kër bu ñu ne am na délégation boo ko teew ñëw fi waaw yaakaar naa ne lii bokk na ci lii jëmmal ne buñ gënee buñ gënee daj waxtaanaat gën a bàyyiwaat xel fi jamono toll gën a bàyyiwaat xel loolu li nga xam ne Sëriñ Tuubaa bàyyee ñu ko te muy doon loo xam ne mooy ci ci la sama njëriñ nekk ci la sama njëriñ alaxar nekk yaakaar naa jafe-jafe bi bare bare loo xam ne ñu ko jàmbat loolu yaakaar naa mën nañ koo jéggi jëli ko sëñ bi waxee lépp def na ko la la ñuy fexe ba jariñoo nga xam ne def na ko te ba koy def kenn taxutul dara taxutul lu dul faggul noflaay ak faggul noflaay ëllëg loolu nag yaakaar nañu ne bu dara ci fulla wala dara wala dara ci fayda nekkee ci ñun duñu sàggan mukk ba dara ba dara dañu ko yàqal loolu yaakaar naa lu ñu jàpp lu ñu matali matali nu kon ñu ngi ñaan mbokk yépp ñu gën a takkuwaat gën a àndaat gën a gën a takk ànd lépp nag ñu jëm ko ji fas yéene sàmm loolu nga xam ne mooy doole li nga xam ne ñëpp ñëpp ñoo ko bokk te noonu li ko sëñ bi waxe léegi dara ëpp di solo mooy ab yar ab yar ku ne xam na ne sëñ bi daana wax ne fekk yi yar bu ko fi jëlee bàyyoo fi dara ku ku fi bàyyi jëloo fi dara yar boobu nga xam ne moom lañ xam moom la xamee woon yar boobu nga xam ne moo doon suñu àll yar boobu nga xam ne moo doon suñu baax war nañ koo gën a fulalaat gën koo yeesalaat commencé ko su suñu suñuy diggante commencé ko suñuy su suñuy kay te xool ci sunu maam yi nga xam ñoom lañ tànn di leen tudde nii nañ ànde woon nañ nekke woon nañ fongante woon nañ joxante woon cër loolu yaakaar naa bu fekkee ne bind yi ñuy waxtaanee ci ñoom ko di ko jariñoo day mel ne tudd gi ak waxtaane sax jariñ ñoonu bari kon na ko te xam ne euh, jamono ji moom day mel ne yoo xam ne mi ngi am lépp nag bu ñu xoolee du génn suñu biir ñun ñoo war a xoolaat sunu sunu doxin ñun ñoo war a fóotaat sunu sunu bopp te xam ne gàllankoor moom mënut a jóg fenn ñëw ci ñun lu dul nag dafa jóge sunu biir kon loolu ñu ngi koy bàyyi waxee bu baax di rafetlu wax waxtaan bi nga xam ne sëriñ Islam Bousso taxawee na ko moom ñu koy sant baax ndax xam nañ ni moom fekk na ko ci ay xat-xat fekk na ko ay programme yu bari waaye yëpp téewut euh, fullaal bu mu fullaal barab bi ndax njëkk fi ñëw tey waaye nag ak fullaal xam ne jël nañ fi ay kàddu kàddu yëpp fukki kàddu yu rafet toog nañ kàddu am di wax di sant gi di sant nag mbooleem mbokk yi nga xam ne jàppoon nañ ci bés bi xam ngeen ni bés bi bu mel ne li mu mel ginnaaw yàlla suñuy suñuy wàllu suñuy kilifa ñoo ci jàpp ba ba bañ mën na ci ay ay mbokk daal yoo xam ne waxtu wu ne di ci jàpp di tax a taxawal ma sëkk ñooñu nag bokk na ca ña jiitu mooy Cheikh Cheikh Mamadou Bassi moom Cheikh Abdou Khadre moom it taxawaay bis mbokk ñi ñu ngi koy ñu ngi koy seeral mbokk yëpp di ko seeral taalib yëpp waxtu wu ne bu yëgee bis bi dana ci yi ma sëkk kon ñu ko gërëm di ñaan di la Sëñ Tuubaa suñu doom dëgëral te sàmm ko ba mission bi nga xam ne moom la ko ay kilifaam dénk mu am ci te am ci ngërëm Sëñ Tuubaa di sant yi suñu bàjjen suñu wàjjen soxna Assou Mbacké moom Cheikh Abdoulaye borom dëkk bi moom yaakaar naa nii wala loolu conférence bu am fii te tudduñu ko te loolu lépp taxawaayam la xam nga mu xam ne kër gi kër ba xam nga mu xam diggante Cheikh Abdoulaye borom dëkk bi ak wàllu mu ak ak ak Cheikh Abdoulaye Sow yi moo tax bis bii saa su accès du yem ci teew bi waaye dañuy day jël loolu jël ña xam ne ñu ngi koy sant bu baax a baax di ñaanal di sant sëñ Abdoulaye ak Jaxate chef de village Touba bu Touba Mossi moom ci kër gi la bokk. waaye loolu